lii Mario Mbaye def tey bu doon man la wala boog yëfu góor yëfu gentleman du doxalee nii ndax man mënuma comprendre sa nijaay tey toog jàkkaarloog askan bi woo rajo yi te la yëpp mu wax fa àdduna di ko dégg muy wax ay bal nga ci jabaru jàmbur donte nga yow yaay nijaayu Mario Mbaye d'accord mais jabaru jàmbur ci l'islam sax bu lu bax séré yu bax sax yow roko parce que boko waxé da nga na fiq dang koy baye jëkërëm jëkërëm la ñuy déglu lu jëkkëram wax rek loolu la bu ne daa baax yàlla malaaka yi da bax baax bu dee la dafa bon malaaka yi bind mais kantaa yow nag kantaa yow nak da yor sa jabar làq ko ci biir kër gi denc ko fa ñëw jël jabaru jàmbur exposé ko ci internet bi di ko wax ay bal di ko yak diko di ko je suis pas d'accord ñawna c'est vraiment honte dama japp naa ne Mario mbay mo ñu man li la wax man japp naa man Mario mbay ci bopam mo ñu parce que Mario mbay mo mo tak xale bi xale bi tak ko bu amé kuy genn di wax ci say parents say papa wala say yaay wala sa nijaay waroo seetaan lolou Mario mbay yow ya wara genn nga taxaw nga wax te muy yow yaa war a génn yow Mario Mbaye nga taxaw nga génn nga wax man lii laa wax loolooy dëgg parce que yow magum jëmm nga doo gone nekkoo gone nekkoo xale ba sa nijaay taxaw di yàq der di yàq der tey jii yàq der yu ñaaw yi naan sa jabar yow lesbienne la naan sa jabar yow dafa avorté ñaar yoon ak ñett yoon mu warta tudd loolu lii keneen ko war a tudd sëf sa nijaay sa nijaay warul tudd loolu parce que bu mu fàtte ne woon dafa bàyyi jabar denc ko biir këram donc tey jël jabaru jàmbur tey di ko yàq imaginer loolu loolu gars yi ni mu ñaawee te li yëpp ki ko waral mooy Mario Mbaye parce que seen nijaay bu ngeen dégloo version déglu li mu mujjee wax dane ñëw ba tey jii may wax ak yéen nijaay moo wax Mario Mbaye nee na ba jii may wax ak yéen sa jabar tey jii ndaxte tey sa jabar la kon dafa mel ni Mario bay dafa yab nit ñi dafa yab jaam ñi parce que man mënu ma comprendre yow nga yor xale bu jigéen mu di la ñaan bat depuis bob ba léegi ak mu yalla sun borom nga koy traîner diko waye di di ñaan la ak soxor parce que mom neena nomatul bu bëggatu la ci jigen bu demé ba taxaw ko bëggatuma la rek bayi ko mu dem jigen kenn du ko forcer ci mu nopp la dedet goor d'accord mën na baña bëgg nga koy di ko toppatoo di ko topp di ko toppatoo ba mu xey am sa yermane far jaar fu bëgg la mais jigéen yàlla bi néew ko noonu jigéen bu nee bugg la rek bugg la bu ko forcé bàyyi ko mu dem ba jamono indiwaat ko mën na demaat ba ñëw bëggal la boppam bu bëggee rek day toog mais tey sa nijaay lii mu révélé secret yi mu wax tey sa nijaay yi lii mu wax ñaaw na te boo ko déggee da ngay xam ne Mario mbay Ndeke moo amul secret amul jaanu biir man du ma condamné nijaay ji de déedéet Mario Mbaye moo amul sutura parce que Mario Mbaye su amoon sutura dëgg lii nijaayam xam tey jii ci jabaram du ko xam parce que lu nijaayam taxaw osé wax ci jabaram ne jabaram balaa Mario Mbaye di ko piic maanaam bala muy tëdd ak moom sax faw mu neexal ko wala mu fay ko xaalis lii mu xam tey jii nii ci jabar yi Mario Mbaye ko wax man li ma séq ak sama jabar du ma ko wax sama yaay du ma ko wax kenn am na ci sew-sew yoo xam ne du ma ko nettali kenn dama koy téel sama bopp fajal ko sama bopp parce que Mario Mbaye góor la jabaram tey jii bu takke biram ne ko tay kat do meuna ñam sol ay sol ñetti jiinam damay dem tegle sama set jim sol ko ñew taxaw lo yow wala bu heure tuddu jotté ma genn dem wut sama xalé bu baax ah piij ko piij ju neex mu top top ba ñibbisi boo boma laaje fo demoon man la dama demoon defari sama yaram di top top fu laa jaay xar wala ma ñam jeexal ko man de li la wax. man lii laa wax man sëñ Bara Kéba lii mooy dëgg parce que góor nga day am fulla yow yaa takk xale bu jigéen bi te nee nga bi ñu ko takkee ba léegi atum yàlla amu leen jàmm moom da nga takk rek mu commencé ñaan baat ça veut dire nobu la te deuxièmement seen nijaay fi mu daanoo mooy kane ndaxte du fóot du togg day nelaw ba une heure ndaxte artiste la danga ko fekk seen petit gàlle mu toj ko xar ko ñett Mario Mbaye sa doom topp ci ginnaawam waxtaan ak moom ba takk ko kooku artiste la view artiste ñëpp xam nañ ko matricule 413 la tëdd 4 heures du matin yow une heure lii mooy view artiste te ndaxte dafa am carrière dafa am fu mu jóge am fu mu bëgg a dem te xam na ne ndaxte ci wàllu moom xam na ne moom day dem parce que xam na ne nit ñi bëgg nañ ko ndaxte xam na ne moom nit ñi bëgg nañ ko ñu ngi koy seetaan te ñu ngi koy suivre xoolal vidéo bi mujj nii clip bi mu def dugal ko YouTube li mu am ci ay vues ci ay millions Wally Ballago sekk mi nga xamante ne sénégalais yi moom lañuy toog moo gën a célèbre actuellement ci sénégalais yi amu ko ci ay vues jegewu ko séenu ko sax Wally Seck laa wax de kon yaakaar naa ne boole naa ci musique kat yëpp ndaxte clip bi mu mujjee def dugal ko YouTube dem leen ngeen xool am na ba mu mujjee xool mi ngi ci ay nangami million benn waykat ci Sénégal fii amu ko déedéet kon ça veut ndaxte am na carrière parce que du sénégale yi rek ñoo koy supporté mais la monde africain ñi ngi koy supporté ñi ngi koy topp di ko ko bàyyi xel tubaab yi ñi ngi koy topp di ko bàyyi xel kon kooku fi mu toll jigéen la jox ne elle pèse kooku du fi nekk yaakaar naa lu koy indi ci ay kër goro muy togg ka yàq di dem marché ka menace ka fobere déedéet loolu bokkul ci sëy bi lay may soxna si bi lay may jabar waxaale wuñu ay togg ak yàq ki fóot loolu amut fenn du ci lislaam du ci fenn amut kenn waxaale wut ak yow loolu déedéet dan la may jabar yow jabar nga takk soxna nga takk jël yóbbu boo demee ci dëkk naar yi wala dëkk yu développé yi seen jigéen yi sax duñ génn dañuy am ay boy yi am ay jànq même Touba gii boo fa demee demal Touba Touba gii boo fa demee dong kil kilifa yi dañuy am fukki jànq ak juróom-ñett te loolu mooy dëgg jabar dëkk boo ko yoree te mën ko noonu koy defal wutal ko fukki jànq ak juróom-ñett tegal ko ñeenti frigo ci biir kër gi benn bi nga duy ci yàpp bii nga duy ci jën bii nga duy ci ndugg bii nga def ci boisson yi jabar danga koy yàq jigéen danga koy yàq mais pas ñu wax pour kuy togg ko yàq ko foo déedéet kon ma jàpp ne kon Mario Mbaye bu dee loolu la kon ma xam leen ndaxte moom wax dëgg yàlla yéen daal du a def parce que artiste la bàyyi ko mu dem way way la xam way la bëgg ci way nga ko gisee takk ko fekkoo ko ci daayra fekkoo ko ci organisation fekkoo ko fenn ci ay way nga ko gisee topp ko bëgg ko mu neex la nga takk ko waaw lii mooy dëgg man li laa wax jaajëf borom fii dollar jërëjëf te nii rek la demee kon jàpp naa ne kon lii nijaayam def ñaaw na te nag déclenché nga la déclenché nga ger boo xamante nii xam nga fi mu tàmbali mais xamoo fu mu yem parce que lii nga def doomu jàmbur ji tey nga nekk nijaay Mario Mbaye taxaw défendre sa doom ne sa doom Mario Mbaye moo baax moo am fulla gisuma benn yoon boo ko critiqué te man gis naa fu mu ko mën a critiqué fu bari bul fàtte ne ndaxte noonu la amee ay bàjjan am ko ay tànt am ko ay nijaay te ñooñ mën nañoo gën def sorti kon jàpp naa ne Senegal mi bax mag ñi deug dañ daan defar sey dañ daan gis ñaari xalé yu and ñu ngi di defar di wax lu bax di len encadrer mais pas ngay génn taxaw di wax wax ñu ñaaw ji parce que sóoraaleen ëllëg ne juboo mën naa am ndaxte ak Mario May mën nañoo baña and tay mais da 10 ans wala da 15 ans mën nañoo àndaat te su boobaa da ngay rus motax lolo tax sey ñaar ñuy sey lu ci way di wax na ci wax lu mu xam point waxal luy defar rek lu yàq téel sa yoon nekku ci parce que xamoo nu Mario ak ndaxte àndee xamoo ndax ca biir néeg ba dëgg-dëgg Mario dafa sikk wala ci biir néeg ba dëgg-dëgg est-ce que Mario Mbaye mënal ko dara ba tey xamoo ci dara te loolu c'est très important yu jigéen yi parce que man Mario Mbaye boo ko gisee xam ne c'est un homme beau ku neex a bëgg la pourquoi kon yaa yaa quel am na problème bu nekk ci biir boo xam ne xamul leen ko loolu moo tax yow taxawal nga defar taxawal nga wax ci wax ju rafet xamoo ci dara xamaloo ko dara ci biir néeg est-ce que moo ngi koy satisfaire wala satisfaire oo xamoo ci dara te jigéen ñi boo leen satisfaire wu vite fait la ñuy génn ci sëy bi dem xooli ñeneen moo tax boo ci wax wax ci loo xam man lii laa wax te lii mooy dëgg jox ma musuwaay li nga ñaaw na c'est vraiment xudd en tant que papa da daan défar wala ni nijaay da daan défar mais daawul taxaw di yaq di wax ay bal parce que nga toñ nga doomu jamm toñ nga doomu jamm en tant que nijaay li nga def tay ñaaw na amna fam yo xamne bo len ko defon ci saa si dañuy génn taxaw répiculer tontu la te yow mari yo Mbaye li ko dal tay sa loxo génn ci parce que kër googu yow ya fa tak soxna muy di jaay Mario Bay yow ya fa tak soxna sa jarba momit ñew tak fa soxna yow ba nga xamé ne kër gogou du kër ta nga waru na génne te kër gogou yow ni nga waxé ya problème parce que yow yaa ne ba ngay tak jabar fofu bi nga taxawé tak jabar rek ba nga fa jabar ci bala jabar ji di sey ci guddigi la la yaaye mo ba nga ñew mo la sama sama dom day planning mo la sama dom day planning kon xam nga fayu boobu yaa problème parce que fayu bu baax du la may jabar ba pare naan la day plan ndax ni nga koy jàngal mooy yàlla waaw ni koy jàngal liberté te yow da ngaa lépp loolu neex ak loolu naqari nga téye ko téye sa jabar ba nëgëli si kenn mësulaa dégg sa jabar yow sa jabar waroon a kaa teg ko ci internet bi mais pas sa jabaru jarbar parce que loolu rek am nga loolu doy sëkk pour nga waxoon ko loolu rek kaa la ndax jabar bu la ko nit xasee may pare na ci moomatu ko yoonum nekku ci yow yaay gérer yaay responsabilité bi mais nit mënu la jox bopp ba pare root ci làmmiñ su boobaa am ah, safewut kon yow yaa waroon a wax yow sa jabar nga waroon a kaa wala say goro mais waroo kaa sa jabaru te maa ngi dégg Mario Mbaye naan ah moom de sama nijaay kenn waxuloo déedéet yow yaa ko waxloo yow yaa ko waxloo parce que góor day am fulla góor day am fayda góor Mario Mbaye day mën a jël responsabilité am góor day mën a jël responsabilité te man ni ma lay gisee dama lay gisee ne que yow nang moo jël sa benn responsabilité yow yaa takk sa jabar bàyyil télé yeeg réseau yi nga toog bu la waxee ngay damm di reetaan déedéet loolu yorul jabar loolu munoo wax a wax a wax ba sa sëy normal yow li ngay def ni day gën a ñaaw parce que xale bu jigéen bi génn weer la wax la ay bal nga génn taxaw tey sa nijaay taxaw wax ko ay bal au lieu yow Mario Mbaye nga tontu sa tey moo génn tey di tontu ay bal te yow ba léegi yow waxagoo dafa mel ni kon yaa yónnee yow yaa yable da nga yable kon yaakaar naa ne sëy boobu mënatul neex ndax bu fekkoon ne kenn waxu ci lu ñaaw delluwaat day yomb mais sëy boo xam ne da ngeen ko teg ci réseau yi di yàqante ka weerante. man Serigne Bada Kéemaan man man sama jëmi bopp du ma def loolu sama bopp du ko def sama bopp duma ko def sama jabar duma ko def sama sama sama xarit du ko def sama kenn déedéet man kaay ñoo may fekk si mais man dew ma dikku ma kaay ñooy ñëw fii ma toog fekk si ma ma wax ci kaay yi mais du ma jël sama vie privée di ko exposé ci yi man du ma def loolu di peuple déedéet xalaatuma loolu maa ëpp lool parce que si dinaa ma xam ne maa ëpp lool damaa am jaabu biir maa ngi dund lu neex di dund lu naqari waaye mbindeef du ko xam. lu neex rek laa leen di wax moom ngeen gis mais leneen nit du ko xam mais sa vie privé jabar wala gel kenn du ko indi ci ay réseau di ko exposé di ko ci teg doo ci am ndam munoo ci jëlee ndam parce que fi mu toll nii ku wartoon a xam ci ndaxte xam nga ko ku wartoon a xam ci Mario Mbaye da nga ko xam moo xam ku la bëgg moo xam sa noonu dana xam yaay kan dina xam fay yu ba famille la parce que tey ku yor sa doom bu jigéen di ko maye doo ko may Mario Mbaye waxtaan wax dëgg ak lu mu mën a yor ci xaalis ak lu mu mën a def ci showbiz nag ku yor sa doom bu jigéen bu baax nekk sénégalais yar ko fi nga ko war a yaree jàngal ko ba ne arab non doo ko jël di ko may Mario Mbaye parce que da xam ne famille bii non vraiment doxuñu <coughs> famille bii duñ suturaal jigéen te nit jëkkër da ngaa war a suturaal sa jabar sa jabar suturaal la say mbokk waruñ cee xam dara sax mais lii nga wax tey si nijaay bi lii mu wax ñaaw na tey bu ndaxte naroon na ñëw sax dana tax mu ragal dootul ñëw da leen ragal fii la leen ndaxte di jaare ragal ba faw parce que waxuma la jëkkër ju ko yàq mais nijaay juy taxaw di yàq jabar lii c'est la première fois ñu gis ko ñun ci l'histoire kon nijaay jaaji paa bi yaakaar naa ko war a wax deug ki xamul fu mi taxaw ah. paa bi xamul fu mi taxaw déedéet xamul fu mi taxaw de xamul fu mi taxaw man li la wax parce que bu xamul fu mi taxaw du doxalee akhirnya billahi yow denc sa jabar sa bir keur di jël jabaru jàpp di ko wer mais pour la lolu ak dal ak lolu yeen da rayap ndaxte barke sayyidina Muhammad bu doon man la sama rak di ngeen ko may baat tey mën a nii wala naa bu ngeen ko mënta may baat bu yidde gi jeexee danaa ko calculer bu yidde gi jeexee bu gisee goro yee ko parce que yéen moomu leen nit ñi di ngeen di osé toog ci télé yi naan ba tey jii tey jii suñu jabar la yéen seen jabar joo ne yéen a ngi toog di ko yàq mais lii après li la lan ngeen bëgg yéen dama leen laaj yéen vous là vous voulez quoi en fait qu'est-ce que vous voulez sama jabar la ba tey mi ngi ñaan baat mais mayuñu ko baat après ngay toog ci télé yi di ko yàq. di wax li fa xewoon vous voulez quoi man kay dama lay bàyyi dama lay ba man dama lay bàyyi dama lay bàyyi uma amatuma ci yow soxla bu dee maa yor sa baat boo ñëwee ma jox la ko ba may tourner la page du ma wax ci yow du a la lijjanti man ku may geeral dëgg dëgg dëgg loolu laay def dama lay multiplier par zéro du ma yor sa dara du ma téye sa dara dama lay bëgg a dem billaahi barke Seydina Muhammad li jëntiwuma la naaru nuyu naa la li jëntiwuma la de déedéet mais lii moom dafa ñaaw Mario may nga ku ñàkk jom la Mario ku ñàkk jom la waxtaan wax dëgg jara de parce que moom gestu ñàkk jom rek lay doxalin xam nga réew mi léegi xaalis da ko commencé yàq danañ gis nit rek di jël xaalis di ko baatale ci kaw ay seen di ko nii nàngam ñu bëgg la nawloo wala ñu bëgg la def quelqu'un déedéet loolu de déedéet affaire bi nekkul foofu de gis nga nit da ngay nite ba pare am sa personnalité bopp nit da ngay nite nite bu jugee ci nit dara desutu ci mais nekkul ay baatare xaalis ak nangam ci kaw seen moo tax ñu mën a considérer kii nit la mais Mario Mbaye personnellement ku ñàkk jom la man maa leen wax lii parce que ñàkk jom weesu nga yor sa jabar nekk ak moom sa nijaay taxaw di yak deram di wax ngay tourner di dambulof di reetaan ba pare nan sama nijaay wax lawun ko nangam ak nangam te yow li ñuy def personnellement neex na la sa bu yow dafa am iñan soxor bu nekk ci yow te sa jabar la ya ko tokon nobotu la nobu la wala nob na la ya xam nobotu la mu ta nekk yow baye ko mu dem libéré ko mu vive yëpp ko sadré mu ko boko yalla ko bind bolé len yeen ñaar digënté bi fantas yu rondu ku rena dem mais bu ko tam mais li ngay def di affaire soxor la te dana tax nga xalé yu jigéen yëpp ragal la képp kuy sëy teg yow ci lu leer la koy tek parce que bu ko léré né bu ngeen ak amul jamm da koy teraneel diko ko mettital du ñëw dédét du ñëw dé du mësa ñëw ci àdduna digënté yow ak té mom du am gawma ko de duma yàlla duma yonent mais lii ngeen ko def tey ñaaw na parce que bu ngeen toogee naan ay lesbienne la day ànd ak lesbienne nag nangam ak yu kenn xamul c' est vraiment xunta dafa ñaaw ci jabaru jàmbur magum jëmm yang bu sax bi jaaw am ay sët toog di wax loolu waroon nga seet yàlla ci li ngay def waroon nga cee seet yàlla bu baax a baax ci li ngay def parce que am nga ay doomi jigéen xaw ndax am nga sët wala amoo sët mais yaa ci yoon bi parce que doo gone te li ngay wax dara leeru la ci te li ngay wax lu ci bëri Mario Mbaye moo la ko nettali parce que ni nga waxee ku ko dégg dina xam yow mi li ngay wax nii Mario Mbaye moo la ko nettali li ngay wax nii ku ko dégg dina xam ne li ngay wax Mario Mbaye moo la ko nettali kon Mario Mbaye war naa jàngi moom it am sutura ndax nit da ngay am sutura nekkul ne la ngay jëflanteeg sa jabar danga koy taxaw ci net bi di ko wala nga koy wax say say nijaay wala nga koy wax say bàjjen wala say tante déedéet dagay am jaaru biir goor goor yàlla deug ba li la wax kon gaay man li la ci doon wax mu metti ma lol nga parce que bi may laay fee nii ngi Facebook ñu len ziar bu baax maa ngi aussi TikTok donc ñi may suivre ci Facebook bi maa ngi leen bu baax di leen jaajëfal ak ñi may suivre ci TikTok maa ngi leen di ziar bu baax di leen jaajëfal bu baax a baax leen wax ne man problème bi daf ma dépassé parce que woo naa Mario ndax Mario dañuy gisee Mario Mbaye dañuy gisee euh, kële nga euh, ndaxte boo xam ngeen ne ngi presse aar. te man waa presse aar lu ci bëri samay xarit dal rawatina waa TFM dama fa am ay soppe yoo xam ne saa su ne ñu may topp di ma seetaan may dégganteeg ñoom téléphone ku mel ni DJ Kalz rek bu ma ko waxee rek doy na sëkk saa su ne bi may bàyyi xel mu koy nuyu bu baax a baax donc ba tax na ne man farlu ma ci kenn farlu ma ndaxte farlu ma bari yu may dëgg gi rek laay wax fi dëgg gi nekk rek man fa laa nekk. leen li ci des li jëntiwuma ko ku ma bere ak ku ma berewut laa yemale parce que man kenn diirul sama ceeb kenn joxuma ci dépasse si ñoom donc ma tax ne man lima ma li ma li ma ko gisee dëgg yi man laa yem man dal bëgg naa góor daal ba góore man yow may daal bu dee yaa may dégg góor day góore góor bala ngay mat góor dëgg dëgg dëgg dëgg faaw nga amale am mbaa ñàkk waaw faaw nga amale am mbaa ñàkk jigéen surtout jigéen fekk tollu la foofu fekk nattuwul la ba xam ne ñoom am ak ñàkk nga yamale du la may jàmm du la respecté bu leen leeree na tey bu la boo leen amee ak booleen leen ñàkkee yow nga yamale danaan dof la kii dof la nañ ko téye parce que dof la moom xamul saba ñoom noonu la ñuy il faut ñu xam ne yow guerrier nga am ak ñàkk nga yemale waaw bëri histoire metti waaw ñoom jigéen ñi noonu ngay nekk ak ñoom de il faut nga il faut nga am ay jikko jikko yii maanaam da ngay xool jikko yi juróomi jikko yi gën a bon nga jël ko di ko dund ak ñoom mooy tax nga am jàmm bi ci njëkk da ngay nekk wuyu ci ñoom wuyu ah réew mën a duul mën a tappale yéen a may dégg dof boo ko defee am jàmm il faut que mën a duul réew mën a tappale ah wuyu dof nga nekkal ñoom ñoom jikko yi boo koy rek da dañ lay respecté parce que dañuy xam ne yow da nga belende mënuñu dara ci yow da nga waaw ñoom loolu lañ bëgg ñoom bëgguñu lu baax boo melee noonu rek amul problème mën nga nekk ak mais jigéen wàlliw moom dalay rey waaw wàlliw dalay rey maanaam boo nekkee ñoom nit ku baax ku sérieux danaa non c'est-à-dire non non non ñoom xamuñu loolu man tey maa wax loolu xamuñu loolu de déedéet waaw il faut nga sadique dof mën a reewantoo pour nga mën a nekk ak ñoom billaahi barke Seydina Muhammad man dëgg rek laay wax boo deful noonu doo am jàmm mais bu ñëwee di la ñaan baat nga fay nekk di korkor nangam non dañuy xam ne yow mii nooy neex nga mais tey jii Mario Mbaye tey bu jëlee xale bu jigéen ba ndax ko mu ñaan ko baat mu ko baat àdduna ñëpp teg seen bët beneen xale bu jigéen bu sëy si ci kër gi bu ñëwee day toog parce que xam na ne baat ak la xam na ne bu créé problème bu la ñaanee baat danga koy bàyyi mu dem billaahi doofu ñu de il faut nga yem il faut nga dundee loolu il faut lu njëkk li moom nga bàyyi am ak ñàkk nga ci yemale nga bàyyi mu dem nu nu mel baax na leen lu ñëw nga bu ñëwaatee day toog parce que dañ naan dof la moom boo ko ñaanee baat mbay la kii du négociant ah. ñoom dañuy calcul rek ay nappante la dañuy nappante waaw rek laa mun leneen waaw bi ne na sama connexion bi baaxul connexion bi moom dafa xaw a doy waar mais ñëwal Facebook connexion bi ñu may seetaan TikTok yéen ñi may seetaan TikTok bu connexion bi baaxul rek dem leen Facebook di ngeen ko gis rek Facebook seen côté kii man ndax ñaare noonu lay bi ñu ñëw sax normal la vert na ci man donc léeg noonu lay mën a demee waaw kon gars yi rawatina waa ahlu Facebook maa ngi leen di bàyyi kon.